bu dee jigéen nee nañu bu àggee suuf di tuur ndox ab sawukaayam dana ubbiku su tuuree ndox ba noppi nag noonee sawukaay ba ubbikoo woon su ko raxasee rek mu doy du sañ a dugal baaraamam ca biir jigéen moom nee nañu bu dee tuur ndox lépp day jekki-jekki rek sotti ku jeex du am lu cay tag góor nag bu dee tuur ndox moom mën naa am am lu tag ca sawukaay ba dañoo wax ne góor ñi dañ cee wóote lool lool am na ci ñoo xam ne buñ dee tuur ndox lépp day génn te jàppandi am ci ñoo xam ne nag da ciy am lu tag loolee tag nag lay wax nañ koy tàggantee mooy day jël baaraamu sànnikaayam ak baaraamu dëyam jàpp ko ca fasawukaay ba saxe ratt ndànk-ndànk mu wut si bopp sawukaay bi su agsee ci bopp sawukaay bi mu fëgg ko ndànk asaltu ratt gi mu wax mooy jàpp gam jàpp ja fa sawukaay ba saxe ak ñaari baaraam ñooñu di ratt ndànk muy ñëw an natru nag fëgg mooy fëgg bopp sawukaay ba su ko defee benn yoon te jàpp ne la tagoon tàgganteku na baax na su jàppee ne des na ba tey mu dellu defaat noonu mën na koo def ba yetti yoon daal ba njortam dëgër ci ne lépp lu desoon ci sawukaay bi rekk deñ na waaye nag bu mu ca topp sikki sàkkaak jixi jaaxa ba mu di ko indil jax-jaxi googu nga xam ne te yàq diine te it na muy ratte sawukaay ba ak nam koy fëggee yépp rek na doon ndànk-ndànk bu mu xir ci diineem bëgguk sell ba tax mu def ko bu mettee metti bu ëpp ëpp ndax nee nañu loolu mën naa tax kocc bi nga xam ne moo daa téye saw mi du ko mën a téyeeti bu ko defee saw mi saa yu ne muy génn ndànk-ndànk ñu koy tuddee am njokkale nee nañu sax loolu mën naa andi góor gi tële du mën a joteeti ak jigéen moo tax na def lépp rek ndànk-ndànk te it bu rafetee njortu ci ne la tagoon tàggantiku na rek mu daal di bàyyi bu jàppee ne sax dara tagut na raxas rek te daal di bàyyi noonu jaxi-jaxi boobu nga xam ne seytaane mën na koo nattoo nit ci wàllug laab dañ koy moytu lool ba sax nee nañu bu naree indi jaxi-jaxi su demee ca wana wa ba noppi day tooyal tubéyam tooyal li wër awraam ba nga xamee ne bu ko seytaan naree jax-jaxiloo naa ko sobe si génnaat na moo tooyal fii su boobaa mu jàpp ne ndox moom sotti woon foofu rekk moomu waaye du sobe mustaj miran mbir mu muy aji dawandikoo béppa xirin ci aji laab mun xiin ju di aji setal jamada joj way na da cee jublu rek jamada joj wow na bañ a tooy laa naq din du caageenu kee aw matoomin wala lu ñuy lekk aw mudin wala aji lor bi xaddin ci ñaw ka istijmaar dañuy firee baat bi rek dawandik waaye waxoon na ne lañ ci jublu mooy bu dem ci wana ba noppi nag dindee sobe sa lu bokkut ak ndox niki bant mbaa doon ji suuf mbaa lu ko nuru lool nag dañuy sart loolee muy dindee sobe sa na nekk lu laab bu fekkan yaxub medd boo xam ne sobe la wala ay xayta yi wow koŋ mu foppe ko loolu ëpp naa def faaw rek la muy dindee sobe sa na nekk lu laab teyit loola bañ a ratax bañ a tooy su loola rataxee wala mu tooy bu ko bëggee foppi sobe sa sobe si day gën a tasaaroo waaye du set ba noppi itam nag bu mu nekk lu amee ñaw ko lu ko mën a gaañ niki bu dee ab yax bu ñaw wala aw doj wu am ñaw ka nga xam ne bu ko foppee bunt suuf bi mbaa fenn ci yaram wi mën na koo xotti muy nàcc loolu day lor boppam bu mu ko dindee sobe ba tey loola bu mu nekk lu ñu ormaal lu ñu ormaal mën naa am doon gum doon ak lekk tax ñu koy ormaal mel ne du fekk mburu mu wow wala daal leneen lu ñuy lekk lu wow rek daal di koy dindee sobeem ba tey lañu ormaal mën naa am muy xeetu mbind xeetu mbind moom nee nañu bu dee alxuraan ñu di ko màggal bu ko tayee ba noppi di ko foppe sobe dañuy jàpp ne daa murtat maanaam daa génn ci lislaam bu ñu sañoon sax lépp lu am xeetu mbind dañuy ormaal mbind ma ba kenn du ko fompe sobe lee mu ne laa naq di nag mooy lu mel ne lu bokk ci wurus mbaa xaalis dañuy bañ ku ko foppe sobe wurus ak xaalis suñ boroom ci boppam moo leen ormaal ba kenn war leen a jël di leen fompe sobe nu fàttalee ne buy bëgg a dugg ca wana wa lépp lu amee rek mbindum alxuraan mbaa turu yàlla mbaa turu yonante bi yu mel noonu na ko génne bàyyi ko ci bitti bu fekkee nag bu ko bàyyee ci bitti ñu sàcc ko mbaalu mel noonu kon nee nañu bu ko dugalee ci poosam rek ba feeñatut mu daal di doy bu ko dugalee ci leneen lu ko mën a muur it ni ki ci portefeuille wala porte monnaie mbaa daal xeet dencukaay bu mu ko ci def ba feeñatul rek dal nay baax mën na koo dugaale ci wana wa xeeti appareil yi xew léegi na nga xam ne mën nañ caa bind alquran wala leneen loo bëgg ci xeeti mbind yi loolu soo ko fayee ba nga xam ne mbind ma feeñatut mën nga ko dugaale ci biir wanag ba tey lu mel noonu duñ sart ne bala nga koo laal da nga amee am jàpp yu mel noonu mën nga koo laal te amewu am jàpp waaye la ñuy bañ nag mooy nga dugg ak moom ci wanag mu jekki-jekki daldi tàkk tàmbalee yëkkati kàddu ya moo tax am na kuñ laajoon ndax lu mel ne appareil téléphone yi mënees na ci aristé alxuraan mbaalu ko nuru mu ne la ci araam mooy mu dugg ba ci biir wana wa mu jekki-jekki daldi tàkk tàmbalee wax waaye su ma ne dogu ci balaa dugg ci wanag rek fay ko kon mën na ko caa def doomi aadama nag fàtte da ko yomb daa mel ni daal suñu xeeti appareil téléphone yeeg yu bare bari ci mel noonu la gën mooy bañ caa def alquran ba hadis ba xasaayiti sëriñ bi ndax rek mën nga koo fàtte dugg ak moom ci fu mel ni wanag fayoo ko woon mu daal jékki-jékki tàmbale yëkkati kàddu ca biir wana wa ba tey mën ngaa dugg ak moom jàkka it mu jékki-jékki daal di tàkk rek daal di gàllankoor ña fa nekkan di jaamu yàlla képp ku koy def war naa farlu ci balaa dugg jàkka fay ko balaa dugg ci wanag mbaa béréb bu am sobe itam fay ko dafa mel ni sax su mënoon na bàyyi appareil ba muy fëgg rek fëgg bu ndaw nga xam ne bu kenn wootee dana yëg ne rek appareil baa ngi fëgg te fëgg ba ndànk lay doon daanaka moom rek moo koy yëg ne am na ku ko soxla keneen du ko dégg mooy gën a baax muy ëpp tuyaaba. waxaay yanu ràññeel nañu. lil ma ñeel ndox fii madiyin ci madiyu aw xaydin wala bërëk aw nifaasin wala dereti wasin aw maniyin wala maniyu aw bawli umta wala sawum jigéen aw xasiyin wala ku ñu tàpp fa tudd xasiyin waaye ku ñu dagg ab sawukaayam fa mu saxe moo ko tax di wax wala kuñ boole dagg sawukaay baag waa yàlla ya aw mu raawale defi ko gis mun tashiran mi aji tasaaroo xan maxarajin walis ab génnukaay in katura ndeem bari na li ñu waxoon léegi ci bu demee ca wanawa sañ na koo dindee lu bokkut ak ndox fomp rek bu setee mu baax dañ ne woon am nay sart sart yi mooy lañu mën a fomp rek bàyyi mooy sawum góor bu fekkee ne te saw ma génnee dafa yem ca bunt ba rek weesuwu ko waaye bu xasee tasaaroo faaw dañ koy raxas fomp ca doy sawum jigéen moom nee nañu faaw day aajowoo mu raxas kook ndox mooy aw ba li unsa jéem wax ndax day ne jigéen bu tuuree ndox faaw di yem ca bunt ba day tasaaroo jëm ca njekkikaay ba faaw kon da koy raxas xayta nag moom muy góor muy jigéen su fekkee ba mu génnee dafa yam rekk ca bunt ba bunt ba rekk taq waaye la ko wër taqul ba tasaaroo ba tey mënees na koo fomp rek bàyyi waaye moom it bu xësee tasaaroo ba weesu bunt ba faaw dañ koy raxas am nañu mu ràññil nag ne moom faaw rek ndox lañ koy dindee kenn mënu koo fomp mukk mukk madi yu la njëkk a tudd madi yu moom bu ko see génn rek kooku da ko war a raxas te dañoo waxoon ne day raxasaale da tàmbalee ca fasawukaay ba saxe ba fa mu yem doonte toq ca te boole ci yéene ndax dañ nu ko digal rek te xamuñu lu tax ñu digal nu ko kon mas yi moom raxas ak ndox rek bu amul ndox nag du tee mu julli julliwaale sobe si ndax ngànt la ndegam mënu koo dindi moom na julliwaale sobe sa waaye faaw bu amee ndox rek war koo raxas ba tey jigéen bu dereti raygalam jeexee wala dereti wasinam jeex te mënta sangu kon su amee ndox moo xam ne mën naa raxas la ko taq ci deret da koy raxas rek noonu di tiim nag di julli ba ba muy mën a sangoo maanaam ba am ndox mum sangoo wala bu fekkee wéradi la wéradi ga dañ ba mën a sangoo waaye daal deret joojee fomp ko rek du doy raxas rek moo cay baax bu amul nag nu mu ko raxase te fekk mu war a julli moom ndax dereti mbërëg mi jeex na wala dereti wasin yu jeex na raxas ko rek dindi ko la mënut bu mu ko tee tiim julli degam tiimay farataam nay tiim du julli julliwaale sobe sax ndax lépp luy wax ne sobe la dañ ne woon su fekkee ngànta tax koo ko julliwaale ko mëntoon a tàggoog moom def na la ko war ndax sañu te yeexe julli ga sax ndax ne daay bàyyi ba tàggoog sobe si far yeexe julli ga ba waxtu wa jàll bu ko defee def lu araam aw man yin jéem wax it noonu la man yu balaa waral sangu farata bu fekkee ne kooku nekkutoon di nelaw man yu ma day génn te ànd ak bànneex ba ko baaxoo génne mel ne laalante ak jigéen tax man yu ma génn wala xalaat ko lu yàgg-yàgg wala xool ko lu yàgg-yàgg yooyu yëpp xeeti bànneex la bu koy génne su man yu ma génnoon nag te anut ak bànneex mel ne jiit da koo fett rek man yu ma daal di génn wala ànd naag bànneex waaye boo bànneex kat daw ko génne ci aada mel dafa jurgóotu rek wokk ab noppam mu daal di génn bu fekkee bànneex mu am ci wokk gaa taxit boobu bànneex daw ko génne ci aada lu mel nii day toj njàpp ak it ñu jàpp ne sobe la suñu war a raxas foofu lay wax ne nag man yi moom faaw dañ koy raxas waaye fomp rek du ca doy su amul lu mu ko raxasee saye boo rek mu julliwaale ko saa yu amee lu mu ko dindee door koo dindee waaye fomp dong moom du ca doy bu doon man yi ma nga xam ne sangu farat te jaawar nag moom bu dee sangu farat rek sobe soosu deñaale góor goo xam ne itam dañoo dagg ab sawukaayam fa mu saxe wala wala ñu dagg sawukaay ba daggaale waa yàlla ya kooku bu dee tuur ndox tuur ndox ma faaw day tasaaroo di yem rekk ci bunt ba wut faaw dañ ko war a raxas ak ndox fomp rekk du ca doy su ko mënta raxas nag mu julliwaale sobe sa ba bam koy mën a raxas rekk baabu muwajibaatil xusli lii moo di buntub way waral cangaay wa faraidihi ak ay farataam wa sunanihi ak ay sunaam wa fadailihi ak i ngëneelam day dugg ci nag ci cangaayul farata wax la koy waral wax ay farataam wax ay sunaam wax ay ngëneelam wa muwajibaatul xusli way waral cangaay xindan naasi fa nit ña sittun juróom benn la faqatul xaydi moo di dagguk mbërëg ma wa nifaasi ak wasin wa wa min maniyin ak ci maniyu xaarijin mu di aji génn bi lazzatin ànd ak bànneex moo otaadatin bu di buñ baaxoo fii naw min ci ay nelaw aw fi yaqzatin wala ci ki yeewu wa min maxiibi xashfatin ak ci fàdduk bopp sàkkara maanaam ak ci dugub rek bopp sawukaay fi ayima farjin ci mu mucc bëy mooy ci ba mucc awra wa xaslul mayti ak sang ab néew aw man wala ka nga xam ne aslama tuub na ci ni mu waxee am na juróom benn yoo xam ne ñooy waral sangu farata mën nanoo far jëkkee yaar yamu mujj wax muy sang ab néew ak ku dugg ci lislaam sang ab néew moom buñ ne farata la itam day nekk fardu kifaaya fardu kifaaya mooy bu kenn mbaa ñenn taxawee ci def ko rek ña ci def seen jaan wàcc na bu ko ñëpp bokkee seetaan ñëpp bokk am bàkkaar ku tuub dugg ci lislaam it su fekkee ba mu nekkee ci kéefër ga amee woon na janaaba kon bu duggee ci lislaam dana war a sangu ca ngaayul farata waaye su ko wóoree ne ba mu nekkee ca kéefër ga mës ta amee janaaba ca ngaayul farata du ko war man ngaa jàpp yaar yooyu nag nu door a dellu ci yeenti ci des ba mu njëkk a tudd mooy jigéen ju dereti regalam koy wax mbërëg jeex jigéen bu dereti mbërëgam jeexee dana war a sangu ca ngaayul farata mu tekki nag bu dereti wasinam jeexee jigéen bu amee dereti wasin bu jeexee mu war a sangu farata boo boolee yaar yooyu ak yaaree yu njëkk na wax muy yent nga boole ci nag góor wala jigéen kenn génn ca man yu te man yu ba muy génn ànd naag bànneex dangay teqali foofu nag man yu ma génn ci ay nelaw ak mu génn te fekkul kookay nelaw su fekkee ne kooku day nelaw moom su géntee man yu génn ci moom faw rek mu war a sangu farata duñ seet ba xam amoon na ca bànneex wala amu ca bànneex ndax ku nelaw moom du mën a takk ay mbiram su fekkee nag kooku nelawut man yu may génn ci moom lay tax sangu farata war ko ca mooy mu ànd ak bànneex su génnee te àndut ak bànneex ni ki aw metit la àndal jiitu ko fett rek man yi ma génn kon dana toj njàpp ak it ñu war koo raxas ndax sobe la waaye sangu farata waru ca su fekkee na it ànd na ak bànneex waaye booba bànneex moom daw ko génne niki yaramam daa def ay góom bu ko wokkee rek wokk bi dana ci am bànneex man yu génn lu mel noonu boobu bànneex daw ko génne su man yu génnee ci loolu dana toj njàpp rek ak ñu war koo raxas ndax sobe la waaye sangu farata waru ca boo tegee fee joteeg góor ak jigéen lay génne man yi ci bànneex mooy lu mel ne góor ak jigéen ñu bokk di foxante noonu loolu mën naa génne bànneex ci kenn ci ñoom ñaar wala ci ñoom ñaar ñëpp wala lu mel ne xalaat bu yàgg-yàgg ci lu jëm ci joteeg góor ak jigéen mën naa am sax moom mooy xalaat ab xalaatam jëm ci jëmm ju ràññi ko wala sax xool bu yàgg-yàgg yépp mën naa andi bànneex bu tax man yu génn man yu mel noonu nag day waral sangu farata li waxagum juróom la bi ko juróom benneel nag mooy góor gi nga xamee ne mu kàllaf la bopp sawukaayam rek bu xasee dugg ci awray keneen mbaa leneen sangu farata dal di koy war buñ nee bu bopp rek duggee dañoo jëlale bu lépp léppi sawukaay ba duggee li tax itam ñu wax ne bu duggee ci awray keneen mbaa leneen mooy bopp sawukaayam boobu bu duggoon ci awray am xar wala aw bëy muy xeetu bahima mook mu dugg ci awray jigéeni doomi aadama ñooyamoo dong ndegam moom góor gi mu kàllaf la bopp sowkaayam rekk bu xasee dugg ci awray jàmbur jooje doonte xeetu bahima la nin ko waxee sangu farat dal koy war duñu seet ndax am na ca bànneex wala amu ca bànneex duñu seet ba xam ndax dara génn na wala dara génnut moom daal ba tey ñu bañ a fàtte ne doonte sax bopp sawukaay ba duggul ca buntu sawukaay dafa dugg ca buntu suuf ba itam fa xaytay génne du tee rek sangu farata war moom daal saa yu bopp sawukaayu góor gi duggee ci aw rey keneen mbaa leneen rek amul leneen luñ cay sartaat na xam ne sangu farata war na ko ka nga xam ne nag ci moom lañu dugal bopp sawukaay ba bu fekkee ne moom itam mag la sangu farata war ko su fekkee nag du mag gone la te agagul fu ñu koy digale julli sangu farata waru ko te soppuñu ko ci moom su fekkee àgg na ci nag mënees naa joteeg moom la muy doon doon gone mënees naa joteeg moom te it toll na ci ñu war ko digal julli ba noppi nag magum jëmm joteeg moom kon xale bu jigéen boobu daañu sopp ci moom mu sangu farata waaye du ko war kon nga takk foofu ne xale bu jigéen boo xam ne jëmmam nii mage na ba mënees naa joteeg moom ñu may ko jëkkër nag jëkkër ja moom magum jëmm la mu kàllaf la bu jëkkër joteeg moom itam du tax moom xale bu jigéen bi sangu farata war ko du tee nag bu fekkee àgg na ci fañ koy diggale julli juróom-ñaari at jëm fukk su boobaa daañu sopp ci moom rek muy sangu farata waaye du tax nag sangu farata ga war ko furuduhu ay farataam xamsun juróom la fatan wi da nga yéene xuslaka sa cangaay waxuma te nga matale kulal gis mi lépp yaram wa bilma ci am ndox waddulukan te nga ragg wa xalil te nga xalil achanra kawar ga wawaali te nga toftale way te nga sësale kaloo doo niki njàpp ba ci jëkk mooy yéene mooy yéene joox faratay cangaay li moom nag loo njëkk a tàmbali rek mën ngaa daal di yéene ndax ndegam moom lépp liy feeñ ci deru yaram wi raxas ko sangu ko daa doon farata kon bu la neexee booy tàmbali daal di yéene fa saasay saasa bokk na ci farata yi itam lépp yaram wi daj kapp bañ a bàyyi fenn fu ne ndox ak loxo àgg fa foo xam ne nag mënoo fa àggale sa loxo sa jaan wàcc na boo ci xëppee ndox rek bàyyi baax na waaye duñu wax ne faaw nga woo ku la ko ragal mbaa dara foo xam ne rek sa loxo mënu fa àgg njàmpe mbaa leneen mënu fa àgg sa jaan wàcc na kenn du la ci tegati benn coono ñetteel bi mooy bomb gi bomb gi farata la soo mënee bomb ba noppi nag xëpp ndox rek bàyyi mbaa nga raay rek bàyyi du baax su fekkee ne foofu da nga caa gaañu nag boo ko raayee rek mu doy daañu ko leeral ci kanam di jar nga di ko raxas soo ko mënta laal sax far ko bàyyi noona ñetta ngoog bi ko ñeenteel mooy fu am kawar ci yaram wi rek ñu war koo yëngal tasaare ko ba ndox ma jàll ba ci fa kawar ga saxe xalil kawar googu farata la muy ñeent bi ko juróomeel nag mooy sësale cangaay li boo xasee tàmbalee sangu doo ko sañ a bàyyi dem di waxi leneen mbaa ngay defi leneen loolu boo ko defee ci tey tàmbalee sangu ba yàgg bàyyi ko bu xasee yàgg rek ndegam sag tey la moom la nga defoon lépp day yàqu nga war a tàmbaliwaat cangaay la bu fekkee fàttee taxoon nag moom la nga defoon baax na kon juróomi faratay cangaay yi ba ci njëkk mooy yéene ji ñaareel ba mooy yaram wi fépp daj fu ne ndox mi àgg fa ñetteel bi mooy nga bomb ndegam mën ngaa bomb te bañ yem ci xëpp ndox rek bàyyi mbaaraay rek bàyyi ñeenteel bi mooy fu am kawar fu ne ci yaram wi ñu yëngal ko ba ndox ma jàll ba ca biir juróomeel nag mooy sësale gi boo xasee tàmbali ndegam fàttewu ko te mën nga ko loo def rek teg ca la ca topp ba ca ngaay li àgg ñu takk foofu nag ne ku gis ci yaramam wala ci ay yéreem loo xam ne day nattable ndax man yu la wala mad yu la wala wadd yu la nga xam ne yett yi daal yett yi daal lay nattali ba xam lu mu ca doon kooku sangu faras du ko war ndax yett la yoo xam ne kenn képp mooy waral sangu farata te moom xamut yett yi loolee lu mu ca doon kon na koy raxas rek waaye sangu farata moom du ko ca war bu dee sikki sàkk nag loolee taq ci yaramam wala ci yéreem ndax man yu la wala mad yu la wala muy sikki sàkk ndax man yu la wala wadd yu la nga xam ne yaar rek lay sikki sàkk ba xam lu mu ca doon te kenn ka man yu la xam nga ne man yu moom day waral sangu farata su boobaa dañuy jàpp la gën a wóor ne man yu la mu daal di war a sangu farata moom la saraa bi naa wa man shakka fi ma wajadahu fi thiyaabihi ahuwa maniyun am madyun aw wadyun fala xusla alayhi wa amma law shakka ahuwa maniyun am madiyun aw ahuwa maniyun aw wadiyun la wajabal xuslu wa sunna sunna leef na al istinshaaxu sarax ndiku ga wat tamad mud ak galax ndiku ga wa xaslu ga ak saraxas al yaday ni yaari loxo ya lil ko waxay ni ba ci ñaari cëkku jara ya kazaaka naka noonu masxu sim xayil ubnay ni masa ñaari bën bëni ñaari nopp ña dafa ñëw ci sunna yi sunna yi juróom la tolloog farata yi ba ci jëkk mooy booy tàmbalee sangu nga raxas say loxo ba fa ñu takk montar mbaa bu dee jigéen fa ñu takk jara nga raxas loxo yi ñetti yoon na nga ko daan defee ci njàpp ñaaral bi mooy galax ndiku ñetteel bi mooy sarax ndiku ñeenteel ba mooy fiiru juróomeel ba mooy massa bën bëni nopp ya li tax ñu wax massa bën bën nopp ya te néewuñu nopp ya li nga mën a jàpp ci nopp bi moom